remercier monsieur le ministre du tourisme qui initiative effectivement mon nekk ci travailleurs aussi def effort tax nga euh, le monde du travail dans le secteur bi nga secteur hôtellerie restauration café et bar donc euh, lool que ko dañuy dañuy encore son excellence monsieur le président de la république Macky Sall parce que lu melni bu amé mu jóg ne dafay jël ay mesures mais ci biir mesures yooyu dafay accompagner employeurs yi pour que ñu mën a maintenir salaire yi nga xamné moy salaire travailleurs yi pour que ñu mën maintenir emploi bi nga xamné tout le monde a la besoin lolu bu ko défé effectivement dañ koy remercier par contre am nañu ay difficultés moy lan moy employeur yi ñu ci bari tay dañuy naan bëgg nañu appliquer mais balaa ñuy appliquer aussi il faut ñu am lu ko appliquer manam il faut ñu jot lo xamné jogé na ci mesure yu nga xamné ne la chef de l'État sa fond mi nga xamné mo lay dégager pour mo leen jappalé ñu ko bu ko défé ñu mën fay salaire yi waaye am na ci ño xamné fimné ni jusqu'à aujourd'hui effectivement xamuñu ban tànk la ñu parce que dañu mo naguñu jël initiative bo xamné par exemple ëllëg si biir duñ ko mëna appliquer parce que li li nga xamné mo lay la ñu soxla mooy fexe bi effectivement fond bo mu nga xamné mo lañ dégager ñu jot ci Travail travail aussi dafa di toujours dama koy par exemple ci euh, ci région yu hôtel yu surtout sali surtout surtout hôtel yu nañ fi à l'époque monsieur le ministre du tourisme bañu dajé sali, pour ñu rendre, nan pour entreprise yo nga entreprise hôtelière lañu nga

do am ci lo japp ou bien nga tok ñu licencier la ou bien nga tok mu am compression d'effectif nga ñak sa liggéey te am ci loo amoo lo loo jàpp dafay xaw a métti moo tax dañu ñaan effectivement monsieur le ministre du tourisme mu xol situation ba mu nga xam mën nañ ci gor góorgóorlu ba au moins apporter quelque chose aux acteurs du tourisme que sont les travailleurs bu ñaan nañ ko ko pour mu wax ko chef de l'État pour ñu xol ci am ci benn visibilité parce que tol nañ fo xam comme ni mako ko waxee léegi lépp benn visibilité la lépp benn vision la les considérations euh, considération la lépp benn réflexion la réflexion bi nag elle est commune je crois que lu bëri lañ ko mën euh, régler par rapport effectivement aux travailleurs gis nañu ñoo xam ne effectivement euh, dañu ne fi mu ne nii dem parce que actuellement amatuñu loo xam par exemple moom moo leen di permettre ñu commencer à faire une gestion dans les réceptifs hôteliers mais cela effectivement il faut ñu xool tuuti aussi

bien yoon ak pandémie wu coronavirus bi nga xam ne moo gën a tey metti Ebola président ñëwaat encore renforcer waat crédit hôtelier bi donc pour que ñëpp mën ci gis seen bopp. ba pare te li ci gën a bees moom mooy dafa am ñeen ñum ci yokk ndax bu ba borom agence de voyage yi la woon ak hôtelier Les léegi daf ko yóbbu ba ci guide touristique yi ak ñu ndaw ñi nga xam ñu ngi gravité autour donc du du secteur hôtelier et touristique. loolu moom moo vraiment ñun nous croyons rafetlu en tant que membre du Haut Conseil des collectivités territoriales ba pare nak di jël combat bobu ñun ci suñu bop di ko porter mom moy dañ koy jël wacc ba ci nit ñi ci suuf ñi nga xamné xamuñu nakal ñu expliquer len li président def lu tax mu def ko ci ñan la jëm ak naka lañ wara mëna def pour que bo bëggee bok ci crédit yoy nga mën ci bok mais ñun tamit dañu nek ay actrice yo xamné ne dañu yor agence de voyage yoré ay auto yo xamné dañ daan liggéey donc ci tourisme di jëli ay client aéroport di jaay ay excursion di dem ay tournée di dem ay excursion ci àll bi ak ñew lool mom moy suñu liggéey ci biir agence de voyage ak di jaay ay billets d'avion soo demee ba avion naawatul client ñëwatul donc yow jaayatoo billet amatoo jaayatoo excursion jëleetoo client aéroport kon yow sa liggéey taxaw na donc kon amatoo xaalis léegi kon fond bi bu ñëwee da lay jàppale pour nga mëna a am xaalis boo xam ne parce que fi mu nekk ni jotaguñ ko te boobu légui léegi ñu ngi continuer di fay parce que ñaari weer a ngi nii yoo xam ne liggéeyuñu mais bu weer wi dee dinañ fay suñu ay chauffeur dinañ fay suñu ay guide dinañ fay suñu ay facture ndox dinañ fay facture courant fay luwaas donc loolu su li ñëwee pour dimbale ñu ñun duñu mën def loolu di ko rafetlu condition yi mi ñëwee waaw lu yomb déjà taux bi dégg ngeen li ministre wax légui ay 2 ak 3,5 sax té 3,5 moy ñi soxla lu baree baree bari mais boudé ñu ndaw ñi à 2 ba paré di nga tok ñaari at di doog commencé fay ba paré té li nga xamné mom la la banque yi daan teg dañ koy didi parce que légui nekatul de particulier ou de chef d'entreprise à banquier légui nguur gi mo ci dugal loxam mo lay lebal mu jaar ci banque bi ba nga xamné ne yu teunk yu bari yo xamné ne banque da la ko daan teunk état bi daf la koy dindil ci ci mise en place fond bi. deug la tay nak euh, ministre du tourisme et des transports aériens monsieur Aliou Sarr dafa convoquer ben réunion bo xamantene 14 régions du Sénégal yep la te gouverneur yi jiite ko ñoko don def ak ndimbalu services régionaux yi tourisme yi nek ci région yi donc waxtan wowo dañ ko tégon tey pour jagale ko acteur du tourisme ndax xam nañ ne. jamono ji ñu toll am na mbas mu fi nekk mu ñuy woowee Covid 19 mu laal secteur yëpp nag rawatina secteur du tourisme kon tey kilifa gi nga xam ne moom lañ euh, dénk lépp lu jëm ci wàllu tourisme ak transport aérien moom it dajale na ay turbam comme niñ ko tàmmee di waxee parce que ñu ngi nekk ci guerre nous en période de guerre moom it dajale na ay turbam woo ay soldaaram ki généraux pour ñu xool naka la ñuy def ba secteur bi mu yore di secteur tourisme mbir mi bañ ñoo faagaagal. moo tax mu ne tey nañu xool naka lañuy ñuy jàppalee entreprise yi ak emploi yi ba emploi bañ a naxsaay ba entreprise yi bañ a tëj donc ci loolu mu ne nag nañu xool xëy na koppar yi bu ñu ko jëlee jàppale leen pas may leen ko wàññi subventionné leen ko mais ñu lebal leen ko lebal bu yomb oyof boo xamante ne taux ba dana wàcc ndax du dépassé 3,5 pour cent waaye it euh, oyof na oyofaay bo xamné dal daal ku ci nekk mën nga ci gis sa bop waaye surtout fexé ba employé baña yaxu mhm. employé dal ak entreprise yi bañ a tëj dal mo gëna tax ñu def li ñu def ni tay deug la loolu likoy firndel rek bo duggé tay ci station balnéaire du sali da ngay gis lepp sali tay bo fa duggé do gis kenn lepp wo kong lepp mais amatul dund Y'a a pas de vie à sali. donc loolu mo lay wonné deug deug mbas mi sonal na secteur bi na nag fii ñun mi nga xamante ne moom mooy poumon du Sénégal en matière de tourisme mooy station balnéaire bu sali ak département de Mbour. dëgg la parce que bu ñuy waxee jàppale tamit il faut jàppale bi ñu xam ne dafay nekk si ñaari boor bu njëkk bi mooy xaalis bi ñuy dugal mais beneen bi mooy jàppale leen ba euh, bu ñu waroon fay impôt ñu ñu ñu pousse échéance yi date yi ñu waroon fay dañ ko pousse banque tamit bu dee leboon nga leen nga war a fay dañ ko pousse doo fay jooni jooni. ñu ne nag loolu xëy na baax na mais roof leen loxo mooy lebal leen xaalis boo xam ne taux bi day wàcc par exemple crédit hôtelier dugal nañ fa 12 euh, milliards pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy entreprise yu mag yi hôtel yu mag yi agence de voyage yi waaye ñu ndaw ñi nga xamante ne ñu ne dëgg-dëgg sénégalais day mos nag ci mbirum tourisme mooy ñooñu muy artisan yeeg gidd yeeg ñu ndaw ndawaan ñooñu ñooñu ñu jagleel leen 5 milliards donc non la dem waaw ministre bi ci loolu la dëkk saay bu waxtaanee ak ay nitam da danaan leen jegel leen ma acteur bi liggéey leen ak ñoom mu rawatina nag jamono jii ñu toll nga xamante ne moom laa wax ñu ngi ci période guerre donc il faut généraux yi génn soldats yi génn ñëpp ñu bokk ci camp bi ñëpp génn pour jàmmaarloo lii. jàmmaarloo bi nag du ministère bi kese acteurs yi dañuy jàpp ñun ñu jàpp autorité administrative yi jàpp yeneen secteurs yi jàpp même presse bi jàpp donc loolu moo tax ba mu ñu nañu taxaw gën a takkaat ndigg yi gën a jàppalewaat acteurs yi gën leen gën a jege gën a dalal seen xel ba jóge fi te ñu jublu ci relance bi nga xamante ne yaakaar ni ma ku nekk ci ci ku nekk ci ngay préparer xeex mm-hmm. boo nekkee ci xeex it foog nga préparer jàmm